di wax nag président Macky Sall que lii nga xam ni moo xew ci Sénégal lu mën a ñàkk la ndaxte tey santiment bi nit ñi am mooy dafa nekk tout temps képp ku nit ñi am espoir ay militant am espoir ci moom ay sénégalais am espoir ci moom day nekk tout temps di ko jéem a nasaxal di ko jéem a daaneel et bu demee ba sentiment yi toll foofu ci réew mën na indi ay jéeye yi nga xam ni mën na ñàkk defoon na ko ak le président Khalifa Ababacar Sall def ko ak le président tey ñëpp dañu foog ni moom lay jéem ak le président Ousmane ko di ko wax nag ni démocratie li koy dundal mooy tey jii nii moom opposition bi mu bàyyi leen ñu doon une opposition forte def seen lool moom chef d'État mu def également liggéeyam et mu bañ a fàtte ni moom moo yor garantie wu paix ak stabilité ci biir réew mi e loolu da ko war sàmm tout kon loolu mooy tànk yi di ko wax nag ni na bàyyi troisième mandat bi mu bëgg ndaxte troisième mandat munu ko fi am ensuite vraiment bu yàlla defee ci bi nu amee indépendance ba tey nga bokk ci ñeent sénégalais yi jiite réew mi kon yàlla deseetu la dara lii la nga xam ni moom nga desee deseek sénégalais yi mooy li ci des nekk ci sunu kanam nga fexe ba noo ci génnee ci nu mu gën rafetee bu ko defee également nga bàyyi réew mi ci jàmm ji nga xam ni moom lan la ko joxe woon